Laye Pythagore à droite ñaq jariñu à gauche drapeau Aïda Mbodj waa Laye Pythagore ñaq jariñu drapeau Aïda Mbodj ñaq ngay ñaan eh bu leen jaawale lii tey la dimanche 14 avril 2019 ñaq jariñu à gauche Laye Pythagore à droite may bañ ko jaawale deuxième gara wala bokk lii mooy grand combat bi wala ñaari grand combat bii moo ci desoon ñaq ak laay laay ak ñaq cay ñaq borom caaro yi laay borom parcelle kër seega eh kër seega bayax alu soufflé na ñaq jëriñu fausse garde féete gauche laay Pythagore fausse garde féete ngemb bu weex laay ngemb Lagos ñaq ñu ngay lewaatoo suul naka nga koy xool ca kaw laay laay bras droit eh, Modou Lo sa mbër maa ngi di bëre waaye ñàkk doomi caaroy cey ji lamb laay marle ko mujj a daan ñàkk doomu dango ko daan laay xeex na laay ñu xeex ñàkk ak laay eh, lu xew ñàkk daanu kaat ab wala lan lu xew lu xew laay laay ak ñàkk kaat ab amul. noppal ma taala lu xew ku nekk nay réclamé de lu xew lu xew ñàkk daan na ko ñàkk daan na laay ñàkk daan na laay waaw dugub ba baaxul taala njaay kat appi la def kat appi da ko mu def kat appi dafa rëpp def na waaw mbaru Modou Lo ma. ndeysaan doomu kër na ko. doomu kër seega bi. waaw am na doomu caaroy bi daan ko. leer na dafa xeex ak moom. Ah. ñàkk répondeur ko. mu daw ko jëli ñàkk dugal ko mu def. at appi dafa rëpp avant muy laali ñàkk. boobu daanu na ba pare. loolu loolu dafa rëpp. oh ñàkk jariñu. Talla Ndiaye. Talla tey la woon dimanche. Talla Ndiaye maa xam nga ne tey la woon 14 avril. Talla Ndiaye bul fàtte. ñàkk jariñu laay Pythagore. laay li ko dal daa mel ni bett na ko quatre appuis la def wala boog loolu la ñu gis ñun loo ci mën a dégg daal ñàkk daan na waaye Saal Baol itam daan na Brise de Mer da koo songale daan ko Big Pato wulee ko daan ak combat yi ca des waaye am na benn xale nañ ko bàyyi xel Petit Lo bu roog énergie doomi Lo góor a sogo may romb waaye loo ci a dégg daal lii moo fi amoon tey caaroy daan na parcelle loolu la ñàkk def taala muy nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaye kenn du mbay guy gi xool fi mu génn ak man ci noir blanc mbay guy gi bëgg naa la gis nga li ma solal ci Nike mbay guy gee ko def taala ku ko def ñu wax ko moo ko def kon mbay guy gi tey demb seex la woon tey mbay guy gi la taala Njaay ba kañ ba fan yii taala ba fan yii